76 98 76 532 64 17 Ndiaye Global kese la info TV ndeysaan très sereen info TV ci grand combat bi petit production LP Events ñoo fi woote grand combat bi moo nekk nii di dox si diggante Fass ak Coly Faye numéro de bu ñu xoolee stade bi taaru na macha allah arbitre bi sifflé ci diggante ñaari xale yi préparation mystique bi yàgg na trop ci côté Ada Fass Kaliphone taxaw di ko xaar waaye li su mënti am rek mooy ñam ñaar aujourd'hui ils vont se frotter tey fu ñu jaar dañuy laale c'est fini. c'est terminé, c'est la trêve de la bataille verbale. Aujourd'hui, place aux actes, place aux confirmations. Koulibaly numéro 2 moom la ñu woon moo ñu woon ginnaaw Ada Fass moo jàkkaarloog ñun ñu ngi noonu gis nañ ku ñu mel ni Siteu ñëw soutenir ko doomu ndeyam Koulibaly numéro 2. Gris Bordeaux le Tigre de Fass également ñëw soutenir Ada Fass rakkam mu doon bis boo xamante ni bis bu am solo la bis bu taaru la en terme d' animation d' engouement mais ça mais également d' enjeu bis am solo la ci ñaaru xale yi. ñu ngi noonu Coly Faye moo ñu woon ginnaaw Ada Fass lañ jàkkaar lool arbitre consigne na ay jugeem laaj na leen ba xam pare ngeen le moment fatidique ndooy jibi a moment fatidique s'approche. Si vous êtes cardiaque, si vous êtes émotif, prenez du sucre, mesdames et messieurs. C'est bien pour rabaisser la tension. Albi Siblena, Koulifay le Tarkina Noir, moom Mamlen Diakar Lol. Diggante ñaari xale yi ñu ngi noonu di lewaatoo leewtoo bu diib Koulifay ni tekk di ko déglu Ada di leewtoo leew bu xaw yoo round d'observation entre les deux protagonistes ñu ngi doon di luwaatoo ñoom ñaar cardiaque émotif abstenez-vous le moment fatidique est arrivé enfin mesdames et messieurs très chers internautes ñu ngi luwaatoo ñoom ñaar Coly numéro 2 Ada Fass mi ngi diree ku mel ko ko topp Ada mi ngi miime xaw a teen Coly même na Ada def retrait de corps taxawaat ñu ngi lewaatoo Coly mi ngi direegu topp ko Coly Faye numéro 2 Ada Fass ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar ba léegi y' a de grand chose y' a pas eu de pugilat également attention Coly mi mën a dóor na Ada Fass moom daje nañu ñoom ñaar Ada Fass Coly Faye nañu Ada Fass Coly Faye numéro 2 LP Evans Reuy Petit Production mesdames et messieurs très amateur de lutte nee naa la combat amateur la ñu ngi ba léegi même configuration de combat Coly Faye mi ngi déré ko di Ada Fass mel ni koy teru waaye Coly na moytu Ada juwal forum la ñu ngi lewaatoo Coly Faye numéro 2 Coly dóor na léegi Ada Fass Coly numéro 2 jege nañu saaku yi ñoom ñaar à la face, l'espoir de face, que lui fait numéro 2, le Tarkina Noir. Sabutaruna également, les amateurs Nyouissa Amos. Animation, c'est extraordinaire. Que lui fait Wachari Mbukandiko, à la face également, Wafas, Medina, Dadko Andi. Mais même configuration, que lui fait à la face. Dégagez nous ça, oui. Que lui Ada Fass Coly Faye numéro jege nañu saaku yi ñëwaat nañ ci biir géew bi Coly Faye tey dina benn lucidité bu am ci moom il est sain Coly Faye dafa dal attention Ada Fass jëm na ko tëkk Coly Faye bañ na Coly Faye Ada Fass war nañu Coly Faye numéro 2 Ada lamb un sport de combat spécial un sport de combat aussi arme extraordinaire attention Koulibaly dóor na léegi dóor bu dal Koulibaly numéro 2 Ada Fass Koulibaly dóor na léegi dóor bu dal ndeysaan bëre mag lay bëre moom mi ngi direeku di ko topp jàppante wàññi nañu ay loxo Ada Fass Koulibaly attention Koulibaly dóoraat na léegi Koulibaly Ada Fass na percute bu dal mu ngi lewaatoo ñoom ñaar même configuration de combat tey tombéeg dimanche juin ici à l'arène nationale de Pikine kilifay numéro 2 Ada Fass ndeysaan di nuyu mes de la diaspora le grand Boubacar depuis la France waaye taal attention Ada jël na tànk bi ku pirkit Ada jël na tànk bi jàppale nañu Ada Fass daan na kilifay la ilaha illallah endooy l'espoir de face Dakarou qui continue de nous impressionner tel un phénomène tel est le qui est né dans les antres ruelles, de face. Arafas ne cesse de nous ébahir et de nous impressionner au sein de l'arène. Il a battu Koulifay avec une suite extraordinaire. Le jeune champion Fassois continue ainsi sa marche victorieuse dans l'arène et continue de confirmer tout le bien qu'on dit de lui. Arafas, un champion qui est né, un champion qui est bien parti pour bousculer la hiérarchie. ndeysaan ndooy tolluwaay aada Modou man mbër laa waaw bilaay du ma wax. mbër laa tolluwaayu Ada Fass biir Ndakaaru. kon nee naa booy bi dama koy daan waxoon naa la ko newoon naa la danaa dagg caay ñoor gi waaye ñoor gi dagg na waaye sabar barke Cheikh barkalla yaay su guddee fooy fanaan barkalla yaay barkalla yaay barkalla